Jangan combat Jangar borom campement wala Mbine Diap ak Paul Menthe bu Mbour Paul Menthe moom mooy yor borom moom mooy borom njëmb lu bulal Jangar moo féete seen ndeyjoor attention Jangar takk mënti daanu jëkkër